mën nañ ko dissoudre il faut nga ubbi hypothèse yëpp lépp mën a nekk. pourquoi tas mën nañ comprendre peut-être. mais dama ni li ma li ma li ma la wax nii Pape euh, Pape man ma waxantu dama yeewu ah, d'accord bàyyi mu terminer waaw. Pastef mën na tas comme mën nañ ko dissoudre. noteel loolu. xëy na àdduna dina dem ba jëmmi jamono ñu waxaat ci. mën na tas comme mën nañ ko dissoudre. waaw mais kon yow yow ëllëg yi nga gisal Pastef fi parce que ëllëg yu lëndëm la par exemple tas wala dissoudre. mais mooy ëllëg yi nga ko gisee lépp du ay ëllëg yu baax. Pastef daal li ma xam li ma gëm man mooy. bu sonkoo gënee ci jeu bi mën na tas mën na éclaté wu mën nañ ko di waaw ah, d'accord noteel li ma la wax xëy na xëy na xëy na bis dana ñëw ñu wax ci. Mm-hmm. gëw ma ni. d'accord bu Ousmane Sonko génn ci pas am na keneen ku mën a fédéré Pastef oh, man gëw ma ko. d'accord man gëw ma loolu. d'accord te li ma gëm dama ni. Mhm. est-ce que Pastef dina continuer exister comme parti maanaam continuer exister te kenn dissoudre ko mu continuer nekk parti ci réew mi man wóoruma mhm. man loolu gëw ma ko. d'accord mhm. ah bu ma ban ma koy gëm gis ko. d'accord mais mais lu tax lu tax loolu Cheikh. <laughs> mais non wax ma wax ma. pourquoi lu tax parce que am na dossier judiciaire yoo xam ni. am na fu muy àgg gëm naa ni boo moytul Pastef dañ koy di dissoudre d'accord. parce que man sama <coughs> bon j'ai peut-être mun naa am loolu. abonné leen ci suñu chaîne YouTube ngir jot saa su nekk xibaar yu wér ci réew mi ak ci bitim réew.